من أتى بخلاس فائق دررا قد جئت ما يعجب السودان والغررا أي باي زينت مزنا على خير البرية من قد أنزل الله في أمده سورا أي باي يا جل جنكو خم خم ما يكو خم باني أم أنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكهت من عمل علما كفنت شرعا ci way war tabax sëriñ bara teelu gaw talaaku ci yow war tabax sëriñ bara bay sa baaya dem ba ca Makka booleel ko tar bu nu dul bay sa baaya dem ba ca Makka booleel ko tar bu nu dul bay sa baaya dem ba ca Makka booleel ko tar bu nu dul bay sa baaya dem ba ca Xaadimu Rasuul Sefu Omar Sadiyon nak sama yo dum pakne gam gane liya yo la ko shek to kalam ga sulu ko to kalam ga sulu mai kalam ga sulu ko to kalam ga sulu mai kalam ga sulu ko to tariqa bel ci bi la la mo do dam bi do be tariqa bel ci bi la mo do dam bi do be tariqa bel ci bi la mo do dam bi do be ten bu mak ba bu sa ko ko dan sa dox bay bay Thank you. Nora اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما خلق قلبي وصدق نطرق يا اخي والهادي الى المستقيم وعلى اله إن ترسل فيه المؤمن متسادلا حقا تسادل في صلاة محمد مرشدي لا شيء في قلبي مثل محمدي للعارفين لا يبر لم يصفها إلا الصلاة على النبي محمد واسرف لوجه محمد عين العشاء وفي البصائر قصد وجه محمد للعاشقين لواحد لم يصفها محمد واخلص لي lépp loo xamante ni dolli kuul rek rek mu ngi wàññeeku bi ñuy way léegi la jëwriñ bi woo ma sax bokk ci sunu waa kër maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu tey ma ni ma dañoo am délégation bu mag mag bu ñu àndal di nekk ci daayira koñ bi fii di waa kër maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu nekk ak waa kër Seydil Hadji Malick nekkin wu rafet sëriñ Sidi Mokhtar bu nekkee xalifa yal na ko yàlla jéggal te yokki leeram dañuy tiijaan mu bëggatuma koo dégg na ñëpp nekk benn te loolu Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi woon yéen ngi koy jëf damay faral di wax ne as murit ak tiijaan asub tiijaan su ñu daje rek coow li bari waaye murit piir tiijaan piir ci nekk xam na la nga yor kon seen ànd bi rafet rafet seen taxawaay bi rafet rafet yal na yàlla doole rafetal yal na yàlla guddal seen fan li ngeen di sàkku ci mag ñi di ko jeex yal na ngeen ko gis yal na leen yàlla xaasal ca barke mag ña bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa dañ leen di jox jox jox ngeen barkeelu comme ni nga ma ko téye léegi comme dafa am ñuy bàyyi ko fii dem ba Tiwaawan Pël ci ñibbi te yoon yi dafa xaw a xëj jox leen ngeen barkeelu tuuti am na benn liste buñ ma jox léegi allahu taala après nañ ko jàllale kon sëriñ bismillah Sunday, my. mag mi la yar te teguwuleen bët def na ci yow bu la neexoon nga sol jiin jaar fi ni dox bu la neexoon nga sol beneen yére waaye yéwénal na la ba am yére bu nu tuddee Baye Abdou Lahad nga koy sol ba mu far laa jàpp ba mënatoo sol leneen lu dul moom leneen loo sol mu déranger la. ci ñoom yàlla na la ko yàlla defal ndax politicien ak docteur ak policier walla wa gendarmerie walla ma wax chef de tenue ñooñu ñoo yor réew politicien yi itam yëpp mooy réew mi baax kii faj itam yëpp mooy nit ñi wér ki ñëpp buy nelaw muy garde guddi bañ lu yàq réewam ñetti ñooñu kenn ñoom fekkee ni ittey politique yëpp xaalis moo la ci tax a jóg doo dem bu fekkee ni faj gépp piriandee la ci tax a jóg doo faj ku wér bu fekkee ni policier yëpp yaa ngi seere xaar ku la jox téeméer yooyu yóbbu sa kër xoolal balaa ngay retraité ku la romb yërëm la الصدق فهو زينة المريد أعاذنا الله من المريد نيو سيف دكارتي ديليغي دكارتي ndombal tànk ku koy xëccoo xamoo lu xew yow xiyaam yow ndomba tànk ku koy xëccoo ngir ñu bala nga jiite xamoo li xew yow xiyaam yàlla nee na yàqam ci ma dara man mi bàyyi jigéen mu ëmb benn weer te may borom kun fa yakul ñaari ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent mu neex ma bu ma neexoon ma def fukki weer kenn mënu ci dara bu ma neexoon ma def ñaar fukki weer bu ma neexoon jigéen ëmb weer waaye man la neex rek ma yóbbu ko ci juróom ñeenti weer bés ñëw ma ni doom ganeel àdduna mu jaar ci nàmp jaar ci ram jaar ci taxaw yàlla ne teral bi ma teral doomu aadama buy buy buy juddu di dox xar buy juddu di dox mbaa buy juddu di dox parce que way jur yi leen ñi def amuñu loxo yu ñu leen téye mënuñu àndoon ngir ñu dox ànd ak ñoom waaye nit mi ma teral nag ba may ko mu am ñaari loxo lenn rek laay may liir bi mu ne ci xelam mooy bu doom ganee àdduna dinaa fexe ba ni liir bi bu ñu jëlee ween dugal ci sa gémm ci boo génnee dina génne labanan xaalisan shaa'iran li saribin ne la muccul nag nga mucc soo génn yàlla ne la fa tabaaraka la axsana xaaliqin waaye li tax ma defal la ko mooy wala xad karamnaa bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiila moo tax responsabilité bu ay yor xamal li la ko may benn dof dafa romb accident jigéen wala bu góor bu góor la xam naa ndax dox bu jigéen day wax tudd dóore yaa ngi may dégg sang dox bi romb accident mu fekk kenn muy gas di sul di gas di sul ba si ci kenn gas ko ci dugal waji ni ko deewuma sama tank do doga dem mu ko xamna len ay politique politiciens ngeen seen wax jërtu gëm jël sul ni waxi politique politicien jangal ni ma mom jarul gëm mané kon am nañu ko jotta xajamal waye am na ci ñoo xamni responsabilité falu yitté loo jàmbaar jàmbaar dina ñu la dut baaraam ni a d'accord ñoo ko yow nangam xoole yàlla li mu bind ni mu toll ñëpp moo leen bind tubaab yi xees ni ñu ñuul ñi mu ne leen rek laa bëgg résultat damaa bëgg ne xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni bu ngeen ma bëggee man yàlla dem leen ngeen bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay laaj ndax yonent bi ñëpp ko bëgg est-ce que ko bëgg est-ce yàlla ñëpp a moom mos bett maa ngi yegg si quatre heures du matin xëyaat dem tudd ànd ak sëriñ bi tey dama jàng benn àdduna bu ma yéem boo xam ne xoolal fi ñu toog di tudd balaa sëñ bee daaneel waa ji tudd papam démb la jógee kër ngun te ñëw feebar daaneel ko ñu yóbbu ko hôpital fi ñu toog di la ñu dee sëriñ bi ni ko papa waa ji wuyut dina boroomam ma ne xoolal diggante mbég ci bi nu koy gërëm muy jooy balaa jooyu mbégte yooyu di rot tàgge nañu ko way juróom beneen rangoon génnaat bu bokk la bu mbégte mi kullu yawmin wa huwa fii shatnin ñaan yàlla yal na yàlla guddal fan nuyu bu baax délégation Saliou Souane Abdou Samaté Diouf politicien kooku réer Aline Bey responsable politique Sidaat Sow Baye Sidaat sax laay wax chef de quartier Oustaz Kane maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara nuyu mboolem kilifa yi teew fuuy bi bari na lool waaye dama bëgg rek résumé waxtaan bi nuyu naa daal association takku liggéey ma leen xaw ma ku leen ko tudde ñaareel bi bi ma taxawee fii laa xam ni noonu la tudd waaye daal li wér te wóor mooy adduna li koy doxal ñaar la mooy fexe ba doo wéer sa ginnaaw gi fu nooyi subaak ngoon bu dégg bëccëg beneen bi ci topp yàlla am na mat bu tolli xaaru li ndéef yi te yàlla baax na de Moustapha yëg na ni doomu aadama bu ne ci ñun kenn ku ne booy nelaw ba 3 heures du matin yàlla dina la booleeg juróom ñaar fukki malaayka benn nit bu ne benn nit bu ne bëccëgee di nelaw bëccëg gi tey day dox ba ci yàgg mu faqasalu tànk bi métti mu làmb ci yàlla ni xaaral ma ni malaayika yi dañ ko mu xaw a sedd ndax daane ci yitte fekk sidit bi yoon boobu mu jaar waru faa jaar te bu fa defee ay fan deret ci dootu fa dugg ngay dox di bébbali poussière bi dugg ci sa gémmiñ gi yàlla ni bokkul ci moom war naa génn sa nopp yi xasan poussière bi fay dugg yàlla ni war naa génn ngay dox ba ci yàgg nga toxo ñu am xeer bu dugg ci sa bët yàlla ni malaayka yi wàcce leen ko ci mbaru bët ndax dafa ne ci ay yitte yàlla nee na booy nelaw jërëjëf ba minuit une heure deux heures trois heures yàlla nee na ma yabal ne soixante dix malaayika juróom-ñaar fukki malaayika ci benn nit ku ne ni la xoolal kële di nelaw am na poussière bu duggoon ci gémmiñam fexe fexe leen ba ni ngeen ko génne waaye bu leen ko yéede ngeen baal ma ci li may indee kàddu bi pour mu leer mooy waral nit yeewu jaar ni fekk poussière bi duggoon ci gémmiñam la malaayika yi di nettoyé ngir mu tax mboolem poussière boo doon a jàll ñu génneel ko ngay nelaw yàlla di malaayika yi gëmm na fexe leen ba nax poussière bët yi am na poussière bu dugg poussière boobu génneel leen ma ko te bu leen yàq ay nelawam nga yeewu xool ci seetu bi ngay tëdd bàyyi woo lu weex lu jaar fii bi nga yeewoo gis nga lu weex lu jaar fii xamoo lu ko fa def te yow yëg nga ni bi ngay nelaw jooyoo nga tëdd di nelaw ku ne xam na ni nelaw nit mënul xam ni muy nelawee mënoo xam da ngaa lem mënoo xam da ngaa taal lépp mënoo xam da ngaa bam yàlla nee na te def naa ci sama bopp xerañte bu tolli bu ma neexoon kuy nelaw bàyyi loolu day nelaw yàlla nee na xamoo da ngaa ŋànk nee na ginax mi mbaxar ñett jug ci guddi gi mboot mi mbaxar ñett jug daw yéeg ci kaw lal bi nga yéeg yàlla nee na yaa ngi ŋànk di nelaw yëgoo nee na bu ginax dawee ba tim sa gémmeñ yàlla ni malaayka yi fël leen ko tàmm nag bën bën bu mu gis dugg ci waaye bii maa koy aaral sama bopp borom a ngi nelaw ndax maa ko bindal sama bopp wala xad karam naa bani aadama ginax ñëw ba tim sa gémmeñ gémmiñu jàmbur muy nelaw yàlla ne maay aar doomu ngay nelaw yàlla nee na bu ne malaayika yi delloo ko te koy delloo dinañ la yëkkati lu toll ak 30 centimètres ci bi nga tëdd tëddoo ko yëpp wëlbati la delloo la say sidit bàyyi leen nga tëddaat boo yeewoo fajar la ni malaayika yi dellu leen ngay nelaw 3 heures du matin 4 heures du matin jot yàlla ni sama jàmm wàcc naa ba asamaanu ñeenteel bu ma neexoon silmaxa gi fexe naa ba ngay nelaw mën naa la koo def dootoo xool ci guddi gi li ma téye say tànk ba doxoo yaa ngay nelaw bu ma neexoon dootoo dox da ngay yeewu di raam ni nga noppee di nelaw mënoon naa laa def muuma waaye yooyu yëpp dinaa ko dabaatal benn bu ne a jox la ko bi 4 heures du matin di jot nag bëgguma dara dama bëgg nga yeewu nga jàpp ba set nga julli ñaari rakk ni ma yàlla teranga bi nga ma defal rëy na bu la neexoon nga boole ma ci seen maxa yi bind bind ma te ni ñuy jullee fajar ñoom ñun noonu lañ koy jullee ñun ñoom tisbaar ñun ak ñoom tàkkusaan ñun ak ñoom timis ñun ak ñoom geewe yàlla nee na bu ma neexoon ma bàyyi ba deux heures du matin nga dem bay nelaw ñu woo la téléphone sa soxna dafa accidenté xaw ma kuy nelaw waaye doo ci bokk bu ma neexoon nga bàyyi ko ci teg doo nelaw ba julli gee war a tëdd sa bëñ bi fett yi métti guddi ku ne xam ne ni bëñ bi métti kenn mënu ko nelaw waaye yàlla xajul ci nit damaa jongama ko dégg mu koy wax xamal ni daane ci jaam waaye ko amee bëñ bu néew dal nga leneen lu dul jongama waaye jongama mënta ànd ak bëñ bi métti bu nit ñi daw di ñëw ngay moyt mag muy jooy sa kenn dóoru la ki lay dóor xamoo fu mu nekk benn métti tam lay yor day toog ba caag mu la ko dul nga yu yaay ma ngay métti ndeysaan borom baa nga ci kaw di la xool ni la benn bu ne maa moom benn bu ne mën naa koo teg ci sa kaw waaye leer na ne la yooyu yëpp maa la ko teggi nat bu ma neexoon ma teg la ko teggi naa ko musiba bu ma neexoon ma bi man maa la ko mën a wax ñaara ngi nii yoo xam ne kenn mënu koo mattalal nit waxal ko soxlaam ak waxatul ko nit boo koy waxatul dina la wax demal gauche wala demal droite sànnil ma kaddu nga waxal sa bopp moo gën a porte yàlla ni soxla boo am ñaan ma ko min al layli fa tahajjat bihi naafilatan laka aysee an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda day nelaw ba neuf heures nga yeewu neuf heures nga yeewu wàcc sa ñaari taal dëttu ndeyjoor fu dëttu càmmoñ woo sa soxna wala sa jànk ni ko tàngalal ma kafe guddi gi daa gaaw yàlla ñu la gore woo doo laaj ñu tëdd lalu hôpital ñu daga benn tànkam yaram way metti xaw ma kan la guddi gi yàgg ci moom waaye laa jël kooku jigéen ji mat doom ji taw a génn nit ñi jaaxle tim ko xaw ma kan la guddi gi dul yàgg waaye laa jël kooku yow bu guddi gi yàggee ci yow mbaa mu gaaw ci yow rek xamal ni maa la may jàmm moo dara man xale yu góor yi ni nu may def léegi xale yu jigéen yi ni nu may def téléphone nee naa leen nii Canada waruloo dugg Sénégal tubaab yi néew na nga dégg yàq der bu am ci tubaab bi mos nga koo dégg yu ñaaw yi ni defante ay Canada di ko di ko estat tubaab yi amuñu jot ñun ñooy fexe ba lu ñottu sunu nit di ko lu ñottu ba génneel ko ba ni ko tey ci internet bi te yàlla nee na yonent bi waxal gaa ñi ni leen man satara musliman satarahu llahu ku suturaa jullit yàlla suturaal la yàlla nee na ku amul kersa nag in lam yastaxi boo amul kersa fas naa maa si te defal lu la neex maa ngay dem sa faa maa ngi leen di nuyu ziar leen bu ñëw li ñu nee ma yaa koy way dama ni leen néew na du man yaa fi dàq way xam naa ni jamonoy tëddee waaye gisuma ku la dàq way moom boo toogee ci tànt balaa ñaari minute dangay fecc bay bëgg a dee doo dégg yonent bi waaye daal yéemu naa waaw damay laaj tey Balla Gaye bi mu daanee ay soppeem nunu def ah ñu yuuxu wane cofeel bi nu am ci moom kii toog fi sànq di way yonent yàlla muhammad lima ma toog fu ne yëpp maa ngi naan xoola yonent bi li mu daj bu ma la xool yonent bi li mu daj màkk loo yor di xëcc ko ci yonent bi Moustapha yëg nga ni yonent bi tëdd na dinaa file toog dinaa file ba fajar xaaj jibril li cëpp wàcc ñëw ni ko nabi na nga def mu ne ko maa ngi ci jàmm yàlla ma yónni mu ne ko lu yàlla wax mu ne ko yàlla nee ma wax la ni la lu ngay naa file te du farata mu ne ko waxal yàlla bu yowmal xiyaamee damaa bëgg buy atte sama xeet ma fekkee ko jibril ni cëw dem ci yàlla ni ko sa waaja nee na la muy naati lépp leen na lay ñaan way atte xeetam yowmal xiyaam mu fekkee ko yàlla ni ko demal nga ni ko ëllëg bu may atte xeetam du ko fekkee jibril naaw fekk ko fi mu nekk li waaja ndékki ñu ko sa borom ma yónni nee na ay na yéwén ëllëg buy atte saw xeet doo ko fekke yonent yàlla muhammad soog bi jàpp ko ba dikkiwul soog bi jàpp ko ba añul jërëjëf Oustaz soog bi jàpp ko ba reerul ñëwaat naa fi la ñaareelu fan bi du pour moom de parce que xam na ne moo yor caabi aljana ma ngay naa fi la di naa fi la ba fajar gi xaaj jibril naa wàcc ni ko lu xew mu ni ko waxal yàlla àllëg muy atte sama xeet naa taxaw lu nu ñaawle ma rafetal ko ànd ak ñoom dem aljana ndax musunu maa gis sama tur la ñuy dégg maa nga medinatu mun a war a tëdd min ashaddi ummati li naasun yatuna min baadi yuwaddu ahaduhum law araani la anfaqa bi ahlihi wa maalihi nabi ni yàlla yàlla ni ni jibril demal nga ni ko bu may atte xeetam du ko fekk ñaari fan nekiwul añul reerul troisième jour Moustapha nabi lay julli bay daanu yu salli bo demé ci lami allah di malikum koy wax nabi allah lil ju'i qaa'idan yu'allimu anna dar sawfa tazul troisième jour muy daan nar bu xees daan lox jibril am yërmande ni yàlla tee ngaa wax ak sa waaj li mu lay ñaan mettiwul yàlla ni ko sama diggante Muhammad nit xaju ci nit ñàkk cee xaja tax bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam ci laa lay baayam bañ a xajal nit sunu diggantee tax bi mu amee juróom benn yàq toog ak yaayam ci xabru baayam mu koy ziyaare fa laa lay baayam bañ ko dox sunu diggantee tax ba mu am juróom ñettat laa lay maamam boole koog jigéen ju baax dinaa ñëw ci xadijat yàlla ni jibril demal nga dem maa ko fayda foofu man yàlla góor laa boo xam ne lu ma wax moo ko dindi nee ko bu ëllëgee bu ma yàtte xeetam du ko fekke waaye pour ma defal ko wax ko ni ko bu yawmal xiyaamee bu xeetam ñëwee dinaa fexe wala lu rafet la ma siiwal ko ba ñëpp gis ko lu nu ñaawle mën na bu ko fexe ba rafetal ko ñoom ñëpp ñu ànd ak moom aljana kooku ndax mën na nu koo fay waaye ñuy tagg yonent bi nga ñëw ba ci taabul ñuy tagg yonent bi génne téeméer teg ni leen jox leen ma 475 yow juróom ba joxe li wecc góoróoru قد صفائي قبيدة بجليل المواعيد وقت سيرين بابكر وانت واي بغنا قولي دم دفع امير مو ياي سيرين بابكر دفع سيرين بابكر سي قد صفائي قبيدة بجليل المواعيد ياي سيرين بابكر دفع سيرين بابكر تجو سيرين كتبين نيك قد صفائي مباشرة صفائي Butler. mel ci dënnam Xadija ñaareelu fan mu géntaat juróom benn biddew ak jant mu jaaxal ko lool di waaw man biddew li ñu ci sama kaw jamono ji tembe sëy na yàlla weddi mu sëyaat yàlla weddi gindi laa sëyal am nañu benn doom mu sëyeeg atiix ñu am benn doom man daal bu ma sañoon commerce bi may def moom lay continuer mu ne ko ah bu demee noonu de di nga amaat jëkkër Xadija xool ni ko man mii di meer am ñeent fukki at nga ne ma di nga amaat borom kër te jigéen bu amee ñeent fukki at li tubaab di wax day mën a pause dootul mën a am doom li ma jaaxal mooy nan lay amaatee jëkkër mun ko tali ci xamul di nga ci am juróom benni doom mu ne ko ni gaay sa li sa xaar juróom-benni doom mu ne ko wallaay takkandeer xaaral ma xool ndax ci la bokk wala bokku ci naan góor ñi avancé leen am takkandeer yu yoon mu ni du kii takkandeer yi gàtt mu ni du kii takkandeer yi pata mu ni du kii takkandeer yu sew sew mu ni du kii ñuy dox ba mu yegsi ci yeneen ci mës a gis takkandeeram mu ni ko avancé yeneen ci bi avancé lu yéeme mustaam takkandeer mu ni ko arrière yeneen ci bi arrière xadija xelam commencé ñaaw daal di la jox la ci màggal gi passé màggal dama ne ci télé bi di waxtaan rek maa ngi dugg dugg ci xam xabru Serigne Touba di def benn béréb naan a firan bi déparé ma fi mu toll ñëpp ay xale la ñi ay màgget lañu ñii simmi nañu seen i mbaxane ñu def tànku neen ñii ngi daw di dëggal te waaye yëguñu ko ngir cofet bu nu am ci kiru gisul ba muy dem ci tukkeem bu sori fa di geesu lu gis boobu ñuul ay weex rek lay gis yàlla ni ko boo dellu see dinaa la fayee ndawi jamono yoo xam ne ñoom ñëpp dinañ la soog sëñ Abdou Karim borom Makarim al Akhlaq doomam di jooy soxna May Karim di jooy ci saal bi ak ñi mu nekkaloon ba ñooñu ñu jaaxle am ku ko ci laaj ni ko lu mu ne ko musuma toog ci télé di jooy daal di woote kenn ku ne seen TV seen taalibe Papa la njagala tudd mu ne ko waaw kii di waxtaan ndax da nga koo xam mu ne ko Mouhamed Mbaye la suñu mbokku Tijaan la soxna May ne du ci laaj. ñi ñëw sama programme gis nañu délégation bi mu yabal may julli bi may ñibbisee comme màggal gi dafa xat may julli timis ma gis numéro bu ma woo ma wuyu mu ne man la doo euh, soxna may Karim doomu sëñ Abdou Karim borom makarimal axlaax jërëjëf gis nañu yàlla yàlla barkeel Moussa Fatim yaa ngi dégg Pape bi muy waaj a kàbbaar mu ne ma man la soxna may doomu sëñ Abdou Karim ma Karim al Akhlaq ma ne ko Mbacke maa ngi lay ziar mu ne ma du Mouhamed Mbaye ma ne ko moom la kay. yaa nekk seen TV ma ne ko waaw maa ngi lay seetaan ci màggal gi bëgg naa wóllërante ak yow ñu waxtaan bu yàgg xam nga da ngeen a tabe mu ne ma ndax da nga am orange mu ne ma waaw am naa orange mu ne kay mu ma kon baax na dinaa am lu ma la yónnee yónnee gi nag xam naa daa gaaw dama di julli ci bis leen samay maro koo si ñu dégg tey sama téléphone ma dama bëgg. sang bi xaalis tey moomu balaa nga xam nga may ko dof dof loo ko may mu xotti ko waaye boo ko jox xaalis mu jubal ca bitik ba xaalis am baat. deuxième raad ba sama téléphone sonné ma xaw a tëxal mu def monnaie xam naa ko orange bi daa joxe yàlla monnaie bi rek laaj moom la sama xel. يعقوب ونعمل الأخبار لقيت أتفكر في أمر دنياوي ينافع الخشوع من خلال ميرو أدنى يقول جلي ويدن كوسي من الله أكبر بيزم راكر اسمه نبي خمنا أراز بيجال من يا واي من أواي yàlla la yàlla man bëggatuma nag ci njëriñ gi dara lu dul seen man ndax ndax situation ba ma fekk ko moo xam ma ne asalaamaaleykum rek raay ci téléphone bi ba xool man daal dama xool message mu ne 150 mille ma tax sama gémmiñ mi. kii moom doy na war mu ne ma gis nga orange ma rek ko man kii gis naa ko dégg naa ko yaay booy. alxames bu nekk ci mbaaxam moom ak xaadim kebe dinañ ma woo téléphone. wax ñu li lii tey jii defe naa ne bii mooy suñu ñeenteel programme boo xam ne wax dëgg yàlla dañ cee dem dox ba xaw a waaye ñii bis bii mënta bañ a yomb na ko ñëpp xam te mbedd mii mënta bañ a yomb na ko ñëpp xam bis bi te mbedd mii mën naa ko waat yàlla képp ku fi jaar suñu borom na la jéggal sa bàq dama am fu ko teg nag waaye du ma ci sori loolu borom tubaab ci baaxam la ko suñu borom dogal falaay yor ndax daa am mbir yoo xam ne doo ci sori loolu moom lu ma leeru lu ma leer waxuma lu ma daa ku ma gis ma ma daa moom wala ma waxee daa ko waaye na leer nañ li wax fu la am kon nag nañ sant yàlla bu baax gis nga ànd gis nga mbedd bi suñu borom a ko barkeel ñetti téeméeri ak fukk ak ko ak ci ay limi am ci nit di fa jaar ko suñu borom dula la jéggal kon dañuy yëkkati bayit yu gàtt rek daf ko addi sëriñ bi te ñaanal ñu fi daje ñëpp suñu borom defal leen tawfiq من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوء سخاء قلبه المأنورا عامدنا نسيرها ليس يرى عود أت في البرايا لبرا رحمتنا المودات فاق البصر والجن والملك جاء مبصرا رب حزو تجارة قد تجرى بحب أدام الفجر من ظن أنه رأى أو سيرى نسير أحمد فقد تحير الله كامل مكمل سواه والكون كله له وما أوى الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن سات الله جل جرما من سنه بمن فأبدا جرما سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين parti bi nag tey moom dafa rafet rafet boo xam ne ndax ñi ko xam ne ñoo ko sabab muy jigéen lii nga xam ne mooy ñu dëkk ci quartier bi dëkk ci yi nga xam ne ñoom ñoo dend ak quartier bi ñoom ñu waxtaan gisee ba ñu booloo nekk benn ñu daal taxawal bët bii mais bët bii rek. xam nga muy xale bu baax Soora Malick association bii nga xam ne tey ñoom ñoo taxawal lii jël xale bi mu nekk seen lépp di dox di wax fu nekk mu jaar fu nekk muy def ba tey lii taxaw kon nag organisation bii wax dëgg yàlla man kontaan naa ci wax nañ ma ma taxaw. gis ngeen ni ñuy def ci ban bi te lii lay tarax yi nekk ci ban bi yëpp lu mel nii la ñuy def kon it dañ leen di ñaanal nii lay yàlla ko yàgg di ko def ay at yu bare bare bare nii la fulla la ak fayda lu tax ma fulla la ak fayda ndax lii ak lépp da bëgg mi bëgg ko dañuy faral toujours di def lu mel nii ndax lii kat moom la julit bëgg kon dama leen di ñaanal ñii day yal na ko yàlla sottel ak ñu jot yal na ko yàlla di def ndax fii murit yaa ngi fi ñi daan yaa ngi fi mais ñun ñëpp dund nañu ñëpp ci koñ bi te ñun ñëpp benn lañu te yàlla moo ñu boole ñu bokk ndey bokk baay fii jàmm rek moo fi am seen siini gis nañ sa taxawaay yaa ngi sonn bu dia, teg ci taxaxi gis nañu ni ni taxaw dia, rek ngeen def maa ngi koy rafetlu leen ñaanal yàlla yàlla fidal seen fan yàlla ngeen yàlla defal leen jàmm yàlla fidal seen fan yàlla sàmm sàmm seen njaboot kontaan nañu lii daal leen di ñaan ak mu jot ñaan yàlla yàlla lii ñu koy yàgg di ko organisé ci gox bi lii daal leen di ñaanal yàlla jàmm jàmm ci kon bi yàlla yàlla boole lii su amee suñu biir kër di am si suñu biir réew ba ñun ñii tey ñu di koy tuddee ñun ñoom ñu siy jéem am yi daal la ñu mën a wax di sant yàlla rek. sant leen sant encore ñi nga xam ne ñoo organiser lii si biir quartier bi parce que façon éducation dafa bëri te li nga booy jàngale yow xamoo ban jàngale mooy gën a am impact da ngay jàngale waaye wóor na ma lii lii ñu ne fii nit ñi gis te ci seen bët xale yi gis teg seen yi gis teg seen bët ñu fàttali leen sëñ fàttali leen fii loo xam ne mooy suñu cosaan dañu war a santaat yàlla te kenn ku nekk mu xam ne lii mooy suñu cosaan lii mooy suñu africanité fi mu ne nii sëriñ bi wax na ko ñu ngi wàcc suñu ànd rek di dem di wàcc suñu ànd rek di dem di toog say ànd te ànd boo toog xam ne la lu yàgg yàgg di siy jot man de en tant que éducateur maa ngi leen di sant di wax suñu suñu jigéen yi nañu gën a si kër yi defaru kër dañ ko defar xali ci si bu ñu leen defaree ci kër ñu bu ci si daayira yi benn problème ko am lay ci ko do ci formation xali lay japp ci xali ñu xamal leen lan moy Sénégal lan moy suñu doole lan moy suñu cosaan lan moy suñu ànde bu ñu toogee suñu ànd ba jëkk ànd bu ñëw mu lañ ko jëfal waaye bu ñu bàyyi ci ànd mu di ci si ànd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فائق دررا قد جئت ما يعجب السودان والغررا أي باي زينت مزنا على خير البرية من قد أنزل الله في أمدح سورا أي باي يا جل جنكو خم خم مايكو باني وجفه أم أنت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكهت من عملين علما كفانتشرا